kan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu defaxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilahi jàmm le quotidien yéene kay lañ koy dooree ci xëtam mu njëkk mu ni nag lépp a juuxa jalaañoo mu ni nag Macky Sall fi mu toll nii baadu daa nekk ci guddi gu bët setagul mu ni nag de Macky dans la tempête ñu ni nag fi mu toll nii tourmente baa nga ca ndaxte yéene bi le quotidien ànd nag ñun ni ñu ñaari junni ak téeméer ci suñuy soldaar si nga xamante ni nag lañu ñu fas yéene daal di yebal foofe noonu ca Yemen yéene bii bi di le quotidien moo ni ci dikkal waaye de ni ki démb nag ca penc ndawul réew ma ña nga xamante ni ñoo di député yi àddu nañ ca wax Mankeur Ndiaye de mooy ki nga xamante ni nag moo indi woon bataaxalu njiitu réew mi Aïda Mbodj daal ni fi mu toll nii de suñu réew mi nag mi ngi ci ay sata Tall Sall mu ni nag li nga xamante ni moo wundu mbir mi faw Macky Sall nag indi ci ay tontu foog mu leeral ko ñu ni nag indi nañu démb indi nañu tey ci mbir mi waaye de ñu ngi fàttaliku général Kayta ak kaw tëf ga nga xamante ni jotoon naa am te juróom fukk ak ñett faatu woon ci le témoin yéene kay bi ànd ak ñun addu nag ci mbir mi nee na ñu dee décision ñu ni ndogal ba nga xamante ni nag njiitu réew mi jël na ko mu ni nag indi na ak xaajaloo ci biir mayel bët yéene kay bi di le témoin indi ci ab seede enquête yéene kay ni ñu nag dee tànneef wa de indi nag xàjjaloo ci biir Mankeur Ndiaye mel ni ku cay tontu nag di wax ni de ah njiitum réewum Sénégal makki Sall dogal bi nga xamante ni moom la jël du lenn lu dul nag wattu kaaraange bërëb bu sell boobee noonu nga xamante ni ma nga nag ca makkatal mu karam Modou Diagne Fada ni fi mu toll nii ay risque rek la réew mi nag di ko riir waaye sa Tall Sall ba tey ca kaddu ya ma ngi koy indi mayel bët yéenekaay bi Sud Quotidien addu nag ci mbir mi di ca wax ni nag Macky Sall fi mu toll nii dogal ba moom mat na mooy que ni suñu jàmbaar yi danañu dem dem foofe noonu nga xamante ni moo di Yémen a ah, ñu ni nag mission ba fi mu toll nii déclenché nañ ko lum ci mënti doon réew mi quotidien li ci réew mi nag la daa di addu daa di wax mu jëm nag ci doomi réew mi nga xamante ni ay takk der lañu soldaar lañu fa seenee nag daa di dem foofe noonu nga xamante ni la ñeeni yabal mu doon Yémen waaye de yéen kay bii di réew mi quotidien ma ngay samp nag ab laaj di wax Macky Sall fu mu jaar député yi mayel yéen kay bi bët la ñu daal di jàll nag ci laas yéen kay bi ànd ak ñun di ñu xamal ni ñu dee ah ñaxtu gi ginnaaw ñi nga xamante ni nag mooy jàngalekat yi ñu ni ñi nga xamante ni ñi ngi ci wàllu santé bi mu ni nag médecin yi nga xamante ni nag ñi ngi yëngu ci wàllu wér-gi-yaram nee nañu ña ngay yuux la ñu gis nag du lenn dul yoon bu nga xamante ni nag dafa am ak par parparloo àdduna ñu nag de ci salaire yi nga xamante ni nee nañu ah ni yamale wuñ ko mayel bët yenekaay bi ñoo ngi koy wax nag caq xët mu njëkk yéenekaay bi nga xamante ni moo di laas te lañ fa jógee jàll ci yéenekaay bi nga xamante ni moo di la soleil mu ànd ak ñun di ñu xamal n ñu Macky Sall dee mi ngi ci tànk yi nga xamante ni doxal nag culture de l'excellence fi mu toll ni daal nu mu gën a ñoŋee rek ca la Macky ne ginnaaw nag jafe-jafe yi nga xamante ni mi ngi ci njàng mi ñu ni yi fi mu toll nii conseil présidentiel lay teg ngir nag ñu daal di caytuwaat bu baax xoolaat bu baax diggale gi nga dig tegtal yi nga xamante ni moo ci nekk rawatina nag ci assises yi nga xamante ni jëm na ci wàllu njàng mi ak wàllu tàggatu gi yéenekaay bi di la soloy di ñu wax tamit ci wàllu njàng mi ginnaaw bi ñu dakkalee nag lu jëm ci wàllu grève bi mu ne nag de cours yi moom lu ci bëree bëri ci réew mi nag reprendre nañu teewul nag waa kisam sak gouvernement bi ñoom di amal seen i jokkoo ba léegi waaye yamuñu ca ñu ni ni ki suba nag de danañu amalaat beneen jotaay ca lañ fa jógee nag daat ni coow ci yéene kay bii nga xamante ni moo di libération ginnaaw doon nañ wax nag lu jëm ci wàllu tàkku der enquête bu rëy Sénégal nag ci menace terrorisme bi nga xamante ni ñu ngi koy wax ñu ne ah am na luy ñuul ci mbir mi te kenn waxu ko libération yéene kaay def na ci gëstu bu yaatu mayel bët yéene kaay bi ñu daal di jàll nag ci direct info mu addu ci wàllu politique nee na ab Abdoulaye Wade fi mu toll nii surprise ba mu nar a doon ci 2017 mayel bët yéene kaay bi waaye yamu co de wàlluk politique gi ba tey buñ ci desee ñu ni mel na ni kat Wade dawul coow booba nag la jamono Idrissa Seck moom nee nañu de ma nga ca tournéem ba ca maatam a ah Idrissa sekk nee na ñu de Bakel googu nag nee nañ ko gongo waaye ñu ca Grand Place yéene kaay ànd ak ñun ak parti socialiste bu Sénégal ñu ni nag mel na ni daal ci gestion Macky Sall wala bilan ba ah beddi ci seen bopp de parti socialiste bu Sénégal la ñu àddu ca biir nag ma nga ca xalifa Sall nag fi mu toll nii ma nga ca front ba nord est bu Daara barte Barthélemy Dias moom nag ak ndaw ña ña nga ca est bu Tambacounda Abdoul Mbaw yëkkati na ay kaddu nag ci coow loolee nga xamante ni wax nañ ko mayel bët yéenekaay bi di grand place ca lañ fa tukkee ni coow ci yéenekaay bi nga xamante ni moo di suñu làmb mu ànd ak ñun nag jàngatu Amadou Kati Diop di entraîneur bu Yékini nee na Tyson de coup bi mu jël. tel moom moo ko déséquilibré yéen kaay bi di ñu jox jàngat bi ni ñu Gris Bordeaux moo gën a intelligent Tyson nag li ko war mooy nag mu arrêté ndax Tyson mënul encaisser ay coups li ñëpp tegal seen bët li ñu war a wax a bari rekk day lii di comp as lëf ci yenekaay kaay yi